alamin euh, soppe yi mbokk yi am di jàmm yi ak ñi nga xamante ni man dañ may bëggee fii lañ ma def maa ngi leen di informer ni man maa ngi nii je suis libre je libre li nga xamante ni wër na àdduna bi yëpp caamaas defeere caamaas parquet ku ci bëgg lu la leer maa ngi lay jox rendez-vous lundi incha allah ci émission caamaas show 10 ba 11 je suis libre aw ma benn problème maa ngi nii sama kër alhamdulilahi rabbil alamin alamin euh, soppe yi mbokk yi am di jàmm yi ak ñi nga xamante ni man dañ may bëggee fii lañ ma def maa ngi leen di informer ni man maa ngi nii je suis libre je libre li nga xamante ni wër na àdduna bi yépp caamaas defeere caamaas parquet ku ci bëgg lu la leer maa ngi lay jox rendez leen di incha allah ci émission Thiaman Show 10 heures ba 11 heures libre awma benn problème maa ngi nii sama kër alhamdulilahi rabbil la alamin euh, soppe yi mbokk yi am di jàmm yi ak ñi nga xamante ni man dañ may bëggee fii lañ ma def maa ngi leen di informer ni man maa ngi nii je suis libre je libre li nga xamante ni wër na àdduna bi yëpp caamaas defeere caamaas parquet ku ci bëgg lu la leer maa ngi lay jox rendez-vous lundi incha allah ci émission caamaas show 10 heures ba 11 heures je libre aw ma benn problème maa ngi nii sama kër alhamdulilahi rabbil alamin alamin euh, soppe yi mbokk yi am di jàmm yi ak ñi nga xamante ni man dañ may bëggee fii lañ ma def maa ngi leen di informer ni man maa ngi nii je suis libre je libre li nga xamante ni wër na àdduna bi yëpp caamaas defeere caamaas parquet ku ci bëgg lu la leer maa ngi lay jox rendez-vous lundi incha allah ci émission caamaas show 10 heures ba 11 heures je suis libre benn problème maa ngi nii sama kër alhamdulilahi rabbil alamin